abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des saa su ne ngeen ay xibaar. politique la tàmbalee daal di wax ci lu ñeel Ousmane Sonko ginnaaw rek bi nga xam ni way takk der yi jël nañ ko yóbbu ko këram ci alxames bile ñu weesu bi ñu renvoyé nag procès am ca diggante ministre bile di Mame Mbaye Niang jëwriñ bi ñu dénk nag wàllu jënd bekk njaay bi ak itam mu yore kàddu gouvernement bi Abdou Karim Fofana daal di ci indi ay tontu. ginnaaw nak bi mu invité ci grand jury fofé ci RFM dal dinay tontu rek jëm ci force étrangère yi nga xamné gis nañ leen ci réew mi ñu yoré suñu karange lolé nak dal di ci ñëw bu baax baax ndax mi ngi wax ni kii Ousmane Sonko alxames bi ñu wéssu nak lolé sax japp nañ app manipulation la rek manam dañuy jéem a naxasal xelu askan wile moo ñu wax ni rek ay force de l'ordre yo xamné nak dañoo xonk ñom ñoo nekk ci réew mi maanaam ay nit ñu weex loole mu wax ni amul fenn ndax gis na ni nag at bu jot rek wala weer bu jot lile di opposition bi dañuy dee jéem rek di manipuler média bi waaye itam di manipuler eh, nit ñi jëm rek ci orientation feneen eh, daal di rek am beneen gisin eh, ci réew mi loole mu wax ni sax fi mu nekk di Sénégal nag dañ koy daal di rek jàppale bu baax a baax moomee sax comprendre na nag jeu bi nga xam ni moom la ñuy amal ndax bu yàlla sàkk wala weer culture rek ñoom ñu indi ay yu bees jëm ci ay nit yoo xam ne rek dinañ leen teg fii mu xam le ni ba tey nag mu nekk ni état bi daal dinay teg ay moyens yoo xam ne rek dañuy gën a ñoŋal suñu karange rawatina nit ku nekk nag jëm rek ci way takk der yooyee mu war a nekk rek lii lee di waa gendarmerie ak waa police fi mu nekk ni sax mi ngi wax ni am nañu waa GIGN ak ñi nga xam ne ñoom ñooy waa BIP ndax fi mu nekk ni élément yooyu ñu fi teg nag ñoom ñu taxaw temb rekk daal di aar suñu karange fii ci réew mi di Sénégal.